def musiba waaw bu ko defee mu commencé liggéeyam commencé liggéeyam nettali naa ko daaw te kenn du kenn ku ne fa mu lay jaar ba nga xam li mu bëgg xam li mu bañ du jaar ci baatam baatu yàlla ëpp na mbindeef di ko dégg waaw waaye kenn ku ne dana fexe ba nga xam li mu bëgg xam li mu bañ te lool rekk mooy li am solo ca la nekk ak ñoom nangami siècle kenn xalaatul woon sax nit dina bind doomu aadama ñoom rekk la nekkaloon bés bu ne mu bind ci ñoom ay millions yu dul jeex bés bu nekk mu organiser ay monde yu dul jeex ci kattanam nag ak man mënam ak xam-xamam ñu wéy ci loolu mu di leen yar di leen informer ñuy xam lu ñu xamul woon di jaar fu ñu mësula jaar nekk ca nekk ca ba am ci ñoo xam ni seen dañ kumpa àgg na seen bañ kumpa yàlla rekk a dañ kumpa waaye seen bañ kumpa àgg na ñuy laaj ci seen xel borom bi ndax fii lay yem am ñu ni leen am na fu mu jëm nag ndax dana jël toq ci leer bu jëkk bi dana jël toq ci leer bu ñaareel bi dana jël toq ci énergie bu jëkk bi bi nga xam ni ci jël bu la tegu dana jël toq ci jël ci bi nga xam ni dafa tegu ci sëlb ñuy laajte rekk fu mu jëm fu mu jëm fu mu jëm ñi sob te sob toogatuñu fu nekk ñu nga fay gëstu ndax seen xel du mën a nangu mukk ni benen bindef war na ma nek ta am gëneel gu ñuy naw ñoom kooku seen xel mënu ko nangu waaye borom bi yoonam li mu bëgg rek moo am solo innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa ñu nekk ci xaal boobu nekk ci xaal boobu ay siècle ak wëndeelu beeg laajte beeg gëstu beeg ba bi mu leen di wóor ni toq yooyu mu jël yépp dana am lu ñu ko lu mu ko tooyale lu ñuy tudde ban te boo wattuwul loolu mu tudde ban dana ci bind mbindeef moo xam ni na yàlla musal ci moom ah, waaye ñu topp ko rekk ndax duñu ko bàyyi mukk nangami siècle ñu di ko servir mu nar a bind ñuy jaaxale ak di jaaxal ñeneen kooku daal mënuñu ko nangu waaye léeg-léeg nga gis ci ñoom ko am yëg yëgu ni bu nu sori foofu nanu yemale sunu xalaat te yemale sunu bopp ndax li nu indi mën na indi keneen waaw ñu nekk ca nekk ca nekk ca ba ñu yëg ni am na espace bu ñu préparé fas yéene bind fa mbindeef ma ñu doon bañ mu am ñu ni nag loolu ñoom duñ ko seetaan dal di jëkk jóg di wër espace boobu fu mu war a nekk moo tax coow bari ñu bari dañu defe ni sunu maam aadam ci aljanna ji ñuy wax lañu ko bind waaye ci espace su boppam lañ ko bind te liggéey nañ ko ba mu mel ni aljanna waaye rekk fekk na gaa ñi jóg rekk opposé ci di ci opposé bay wut espace boobu fu mu nekk ndax ñu riitale ko moo tax ku defe ni di am jàmm da ngay nax sa bopp waaw ñu di ko wër di ko wër di ko wër ba dégg benn espace bu nga xam ni wax nañ ni foofu rekk la yaakaar ni fa la koy mën a binde am kenn ci ñoom ku leen wax ni réer ngeen réer ngeen ndax espace booba amul ban ban amu fa te muy dëgg ban amu fa mu nekkati seen coono coono bu day na ñey ba ni mu bind aadam ba mu sotti te amuñu ca pexe fierté ba mu ca am moo tax mu ni na ñépp sujjóot ñépp sujjóot teguñu ci dara mu teg ko nattu wàcce ko moo tax ku defe ni da nga mucc da ngay nax sa man boobu mënuma ko woon dégg mukk fierté bu ko jaral mu sujjóot loo ñépp ñi ci kaw ba noppi ki tax ñu def loolu mu wàcce ko sonnal ko ba dund sax bëggatu ko nga defe ni yow da ngay doo dem ah, ndax nit du nax boobu boobu di ma jaaxal rek ma ni naa ko laajte waaye ñemewuma ko laajte ñama am pour laaj leen ko ñemewuma dem di leen wax ni yàlla lu tax mu def loolu wallahu la yusalu amma yafalu bal nahnu masuluna amma nafal yàlla kenn du ko ni lu tax nga def lii kenn du ko ko wax mu wàcce ko bi mu koy laata wàcc mu bind mu bindal ko soxna muy xawwa waxtaane naa ko fii benn at wax ni na yàlla waxe mooy aadama dafa ñorul ma ni leen noonu la waxe te ku ñorul nag dafay laaj fu ñu la jaar pour nga ñor waaye booba fekk na jubóowuma ak régime bi régime bi am journaliste bu mu woo ni ko man neexal la nga bind ni Cheikh daf doon saaga sunu maam aadama biig ci guddi kooka gàntal parce que am na loo xam ne nag foye sa bopp la te mag du fooye boppam waaw moo tax li nga xam ni moom la mujj xamle mooy moom sunu boroom moo di du am doom wante bu sañoon am ku muy xoole doom te kooku mooy ku boole jikkoom yépp am ko te jikko yi dañoo am sang lu jikko yi baax baax bu sang bi dikkul jikko yi du baax waaw bu ko defee nag sangu jikko yi mooy wolonte mooy li ñu tuddee wolonte sunu boroom xam ni tant aadama amul wolonte bi mu bëgg du ko niru te bu ko niruwul du ko jar yàlla jaam amul wolonte gedd na la ndax xam na ni doo jëriñ sa bopp fii doo jëriñ sa bopp fële moo tax wolonte mooy sangu jikko yi boo déggee ñu naan ragal yàlla taqwa taqwa taqwa am na sang taqwa am na sang sangam mooy nga jege yàlla waaw ndax nit dana am taqwa te du tee muy tiit te du tee muy jaaxle waaye ki jege yàlla du tiit du jaaxle mukk abadan waaw ndax kenn du ko tudd àjjana kenn du ko tudd sawara moo tax kuy yar kuy yar rekk volonté ngay yar ci doomu waaw taqwa nag lay wax ittaqillaha ittaqullaha nangam nangam taquwaa nangam inna akramakum indallahi atqakum wante am na bu ko ëpp doole mooy nga jege yàlla nga jege ko dootuloo tiit dootuloo ragal waaye nit dana ragal dana am taqwa ba noppi di ragal di tiit yonent yépp ku ci ne saalit nga bés waaye ci turu taqwa nga saalite mais ñi ci jege borom bi mu suñu tiit mukk dañuy xuloog moom sax waaw doomu aadama mën na dem ci jege njàll buy xuloog moom dara du ko cafe te loolu nag lu ko dàq amul ndax kóolute la te kóolutee gën lu nekk waaw loola tax bi mu bindee xayb bind shahaada jël relation yu wóor doxale seen diggante waaw yonent yi jariñoo nañu ko jariñoo nañu relation yi nekk diggante xayba ak shahada waaye bi yonent bi ñëwee léegi nag dafa évoluer waaw bu metti nag fi mu nekk Maodo dafa wax ni ña ca barsax ku leen di tudd na leen tudde teggin ndax sore wuñ na waaw rido bi dox sunu diggante ak ñoom nee na moo gën a woyof muslim moo tax daan na jaaxle ci benn baat moom ni mu mel kenn xamu ko benn baat daan na ko jaaxal ba comme ni mu nuy jaaxale mooy ñu ni la diw faatu na nga ni yal na ko yàlla yërëm te ñu yéexe ñu jë daf ko daan choqué ndax ne ki nga gën a bëgg looy sàkku ci mu yéexe la nee na xeet la ci weddi ki nga gën a sopp te moo la bind gën la xam li muy def ñu tàggale nit nga ni yal yàlla yërëm ko te yéexañu xeetu yéexañu ja dafay yëg ni du kaadaru def lu baax mais bàqaar la bàqaar bàqaar bàqaar moom nga waaw ndax yaa ngi naan bu man na mu yéexe rek ma lekk sama ceebu jën rek te mu bàyyi ma rek man ma naan sama ataay boobu daf ko daan choqué bu metti yàlla xam na ko yu mel noonu dafa daan bare ndeysaan lu mu ko dal te boo ko seetloo it xam ni noonu la waaye itam ku nekk ak fa nga mën a yem wax dëgg yàlla ku nekk ak fa nga mën a yem doo mën a jéggi fa nga mën a yem waaw moom euh, fa mu yem la waxe waaw tabarkalla kilifa gu mat kilifa la ndax li mu jàngal ci yonent bi kenn xamul nu mu toll li mu bind ci moom kenn xamul nu mu toll ba noppi waññeeku ni boo ma nee Abdoulaye ko jur ma nangu boo nee Aminata ko jur ma nangu boo ko bëggee paase ma weranteeg yow seetal loolu ma ngay daqaada ma ngay daqaada ma ngay dàq aada ndax yonent bi yàlla ko def li mu doon na ko Abdoulaye jur ça n'a rien à voir ak li yàlla def na ko Aminata jur su yabo muy wax nag ni boo ma nee Abdoulaye ko jur ak Aminata boo ko bëggee passé sañ naa weranteeg yow loolu mooy xaqiqa rek moo am solo waaye aada amul solo aada boo ko càmbarul rekk dana la bett te su la bettee nga rus waaw dëgg la nag léeg-léeg nit ñi xewal loolu aada la te waxuñu dëgg du aada du dara du lu kenn xam dafa am benn mag mag bu ma xam man te yéex ko xam maam la ci man pël la ni man waaw keroog laa ko jëkk a gis mu nga sol foroog bu nga xam ni boor na ma ne am na téeméeri boole ko maaka mu nga xam ni ku la ko jaayoon ci dërëm doo ko jënd ak benn yet bu am ñaari nopp ak tuba yu gànnaaram boole geño der ga mu ko ñoore ndeke góor gi fu nitu yàlla di àgg rek àgg na fa seetal loolu mu ñëw nag toog ci diggu kër gi tabarkalla xale yaa ngee foo di sànnente seen bal di def xawma ay football ak yu kenn xamul waaye góor gi di leen xatal ñu di ko soow rekk di ko soow di ko soow ba mën ko muñ maa ngi nekk ci saalu soxna mul xëyër ma ne ah naa jóg àtte ji góor gi bi ma jógee ba jub ko rek góor gi saaga leen benn saaga ndey dama defe ni woon tremblement de terre dana am xamuma woon mukk ni wëliyu dana mën a saaga saaga bu day noonu ba noppi boole ca loo xam ni nag moo écrasé xale yi ni leen yéen de seen baay bu amee woon caabi na kenn du ci dugg kenn du ci dugg ci koo xam ni liñ ko jëkk a jàngal ci daara ji mooy ku yéenewul yiw sa mbokk jullit doo jullit te ñu wax leen ni ñoom seen baay bu amewoon woon caabi aljanna kenn du ca dugg te aljanna moo njëkk ci yiw yi xale yi nag taxaw ñoom ñëpp xulli seen bët yi jaaxle fàtte nañu football ak fàtte yëpp waaye yàlla buggul ku ndamu naka la góor gi yëg ni écrasé na leen rek aada nax ko mu ni leen yéen xanaa géwél ngeen benn xale waxu ba ci kanamam ni ko dafa aay mu ni ko kuy sa géer mu ni ko yonent bi xale bi delloo ko xaqiiqa bi wan ko ni ko daanu nga jël bu rëy parce que ngéwél amul daldi wàcc bu jëkk moom góor wàcc ci suuf teg yetam teg maakam ci kaw baam bi daldi wax ni maa ngi tuubal yàlla te maa ngi leen di balu àq ma ni seetal benn minute sunu boroom yar ci ñaari génération benn minute sunu boroom yar ci ñaari génération génération boo xam ni dundam jeex na ak génération boo xam ni dundam a ngi tàmbali pour wax la ni pour wax la ni dégg rekk moo am solo waaw jàng téere yépp amul solo waaye nga dégg nga dégg moo ëpp solo Maodo daan na mere lool ku jàng te déggul li mu jàng daf ko daan feebar sax daf ko daan feebare moo tax bayt ba daf ko daan faral di rekk wax di ko waxaat laqad laqad asmacta law naadayta xayan walakin laa xayaata liman tunaadi daf ko daan répété rekk bayt ba dafa wax ni ki nga waxal dafa faatu moo tax déggu la kon nag bul sonal sa bopp ki faatu kay kenn du wax ak moom waaye fekk na mooy koo xam ni nanguwu la dégg rek waaw bu ko defee ci biir loolu yonent bi nekk fi man ci ñëpp waaw wax la loo xam ni kenn mësu la ko wax wax la lo xamni boko deglo te deggu ko ding ko jariño ba faw nek ci ak nit ñi fe kam nañu ko ci jitu waaw wante yàlla dimbale ko ci waxin ken xamul ni mu daan waxe da waxinam nag li muy am solo yeb agul alquran ci wee waaw bu waxu yonent bi dee xaalis waxu alquran moom wurus lay doon parce que ku jàng alquran xam ni kii nit waxu ko waaw kooku moom loo gàtt gàtt xel loo gàtt gàtt alluwa boo jàngee alquran xam ni kii du waxu nit waaw moo tax jar na di jàng nag wante jàng ba ca war waxuñu soow rekk génn ca noonu kese kese dëgg la nag li ci nekk yépp ci yiw kenn mënu ko jëfandikoo li ci nekk yépp ci musiba kenn mënu ko wattandiku kon nag yàlla rek a fi des waaw kooku lool rek la tabarkalla tabarkalla la mu daj yépp terewul bi muy dem mu ni leen neexul ba neexul wante su ma demee sama xeet wi dina ñu teqali ko ñu nekk juróom-ñaar fukki xaaj kenn ku ne di woote ni yaa nekk ci dëkk loolu ci nit ma parce que yàlla ko bëggee noonu parce que kuy yar volonté fokk ngay teqale teqale ba noppi ni bu leen teqalikoo loolu kenn mësu ko dégg loolu yàlla rek ko sañ teqali nit ñi ba noppi ni bu leen teqalikoo te moom moo leen teqale seetal loolu bu ko defee ñuy reyante rek ak di xastante rek te mu ni bu leen ko def bu ngeen ko defee rek ma yóbbu leen safara waaye na ngeen teqalikoo na ngeen xuloo ndax damay yar volonté ci yéen seetal loolu nga defe ni kon àdduna dana neex du ma neex ñuy wéy ci loolu ku ne di weddi sa moroom walla nga saxal sa moroom walla nga faral kenn bàyyi ka ca des ñu nekk ci yooyu ba nga xam ni daaniki ci la tendance yépp juddoo tendance lan lañu jur ay tariqa ay tariqa lañu mujj jur ñoom tendance am na at bu nga xam ni dama def voyage di jéem a seet ñu ma mën a xam ci ñu am amee tariqa waaye jot naa ca bind juróom benn fukki tariqa ak ñett seetal loolu te bokkuñu kilifa juróom benn fukki tariqa ak ñett te bokkuñu kilifa waaye نيتا يالا جوخ لير تا موي اقطابي اك اولياوي داف لين وخني طريقة يو يب بومو تي نيوم ني سوس سين طريقة بوب نيوم شيف يبوكوكو te kenn du ci bokk lu dul ñoom ñu wutal leen benn sénat sénat ba ñi yilif tariqa yi di fa dajeek yonent bi di def seeni délibération lu am solo la fa ñu def nag sénat ba moom la shayatin yi doon wut defe ni fa la bindee aadam mënuñu xam ne foofa seenaa fay juddu fekk nangami siècle mënuñu ko woon xam bu ko defe nag ñi ame tariqa ñépp àndandoo bokk def benn tariqa bu ñu bokk ñoom te du tee seen njaboot nekk ci seen tariqa affaire bu am solo la ko defee bu ñu dajeeg yonent bi léeg nga gis ci koo xam ni kilifa tariqa la waaye dafay wax ca jataay ba ni yow mii tariqa bi nga yilif diw ma ca nekk jar nañu defal ko shahada ndax ku baax seetal loolu te yow ki ngay protéger bokkul ci sa tariqa waaye xam nga ni ci sa tariqa nawle la bokk te ma nga fay def lu baax defu fa lu bon nga proposé ko ci kanamu yonent bi ni nañ ko defal shahada yonent bi ni nañ ko defal shahada seetal loolu buñ ko defalee shahada ba noppi ñu laaj ramzu shahada bi ban la buñ leen ko waxee ñu bind ko te ci ramzul shahada bi lañuy ñuy kooka ñaata at la dese ci kaw suuf waaw ñu nekk ca nekk ca nekk ca ci baax gu rëy googu ba ñu gis ni jamono gi wëlbatiku ñu daldi diisoog yonent bi daldi di ni kon nag nañu fexe ba délibération yu mujj yi na làmb jamono yépp te ñu tëj Sénat bi ba loolu lañu mujj def Sénat baa nga fa ba tey am na ñuy ñaan ruqaatu siyaax di fa dem di ko seeti au lieu kon ñu dem Suisse walla ñu dem feneen dañuy ñaan kayit ñu may leen ko ñu dem seeti Sénat ba mën nga fa ni ñum te fa ñu ko tabax amul ban foofu la cheytaan yi yaakaaroon ni mooy nekk fi ñuy tabaxee aadam waaye fekk na Sénat ba fa jëm te fit Sénat ba tëj nañ ko léegi waaye boo amoon léegi autorisation mën nga fa dem Bo amul autorisation bo demé deug la nak garde yaa nga fa waye sen présence c'est symbolique c'est symbolique lutax Modi moo barab ba moy défendre bopam ku fa jëm ci l'autorisation de autorisation mu geuk la kon nak bu fa garde amé présence c'est symbolique kooku loolu rek la du lenen nak ba batay amna am ñu fay dem diko ko waye fokk ñu ñaan autorisation fokk ñu ñaan autorisation looloo tax قاضي قاضي محمد عبد الرحمن لاتر بيم موج بند موني مانغي لا فاتليني ني دماند اوتوريزاسيون بور ديم فا واخ لين ني گندو فا سولدال گندو فا سولدال تعمل بين amul beeñ beeñ ba sungufu wurus bu ñu jaxase